teer boo yëpp ay kaaw instant boo yëpp maa ngi nuyu ñëpp di bëgg àdduna ay defees tàngaay bi naka nga koy dundee. waaw tàngaar bi mu ngi rek waaw métti na trop mais tam sant yàlla rek. Euh, ni ma la gisee nii dafa mel ni da yokk poids bi léegi de. waaw man maa ngi entraîné moom mosuma waaw maa ngi liggéey lu métti bi la lan ma woo yokk poids li naan lii dafa tuuti wala doole ji dafa néew. lan ma woo yokk poids te amuloo combat amuloo daal. doole nekkul maanaam si maanaam ngande la wala néew wala affaire yooyu maanaam man ba may bëre mbapat laa gënoon tuuti te ay ponkal laay jàpp di baraaja fët fët di bëre ñoom si xel mu seel leen daan kon doole nekkul loo xam ne si bëtu. micro bi ajal gis nga ngande. wala nga mhm. benn genre bi. non non ñun maanaam ñu ngi entraîné quoi xam nañ suñu bopp bu baax xam nañ ko man ma xam naa sama bopp xam naa kan mooy liis. waaw poids tam lu tax mu yokk tamit liggéey la dañu dañuy entraîné rek. waaw waaw ah, parce que dafa mel ni maa ngi ni ñëw léegi di la di di la fekk nga ne ma boo yéexoon tuut da may fekk ma dem saal. waaw boo yéexoon dama doon dem saal laal booy dama duggoon pour préparer nga kóol ma ne ma yaa ngi si bu nu gàll bi ma la waa xam ma ñëw te bu ma pareeg yow nii damay dem saal ah, entraîné. fi mu toll ñaata ñaata séance ngay def. fi mu toll nii ay deux séances laay def. waaw damay xëy mbar naa su ma xëy dem saal wala ma xëy dem saal ngoor ma dem din wala maaro la hmm. gaa ngi lay woo di la wax comment parce que ci li ma jot a dégg hmm. dafa mel ni sanction dindi nañ ko fi mu toll nii moom man su waaye sama ménagère man lu ma mooy neel ma sanction bi waaw du dara quoi naa nekk sama ruk di entraîner rek tamit dégg naa loolu non du dara ma la dindi nañ ko parce que tamit boo xoolee ñu ci bari dañ lay ñaanal yàlla nañ ko àjji yàlla nañ ko ah. dindi parce que xale la dafa bokk ci làmb ndax loolu defu ko ay supporter moo ko def. xam nga mu ci bay daal dañ lay ñaanal mais sanction dañoo bëgg a xam ba xam teggi ma ci lu leer quoi. amagoo ci lu leer. waaw amaguma ci lu leer parce que manager man benn wax la mu wax mooy entraîneur du dara waaw nañ ko jéem a lijjanti xam nga affaire yooyu noonu. Mhm. tamit ñun làmb lañ am ñun làmb mooy suñu mhm. te lu topp suñu ginnaaw dafa bëri trop. te ñu yaakaar ñun dafa bëri ñu ñu toog maanaam bëri lis bu toogee bëriwul. CNG mhm. loolu amul leen sens. yaa ngi dégg téye nañ licence liis lis toog na bëriwul ba at bu mu war a bëri jot mu bëre loolu amul sens maanaam nañu bàyyi ñu ko waa ñu làmb lañ am mooy suñu métier. reliquat bi reliquat bi ba léegi fa mu nekkoon fa la nekk. waaw ñun waxu reliquat sax waxatuñ ko waxu reliquat ñun waxatuñ ko waaw ñun nañu bàyyi ñu làmb. Mhm. waaw ñun làmb lañ am amuñu leneen lu dama war a bëri quoi nañu bàyyi ñu bëri Euh, boobaa ak léegi promoteur yaa ngi lay woo di la proposer adversaire wala boog yaa ngi toog di déglu ba léegi. waaw ñu ngi woo di ay adversaire waaw ñu ngi woo di proposer ay adversaire lu tee lu tee bi taxaw. waaw combat bi taxaw lu tee combat bi taxaw man maa ngi samay entraînement tamit te dëggoo waa Sénégal dañ maa aj loolu ñu wax. mais buñ la ajee kay promoteur du ñu waxaale dama bëgg xam kay ba xam. yaa nangoo gula jël avance wala boog ñi lay jox ko buggul wala parce que man maa ngi dégg maa ngi dégg ay maalaw séeraas fii maa ngi dégg ak kan sax am na keneen. ku la ko ay ay naaru sokaas mais tamit loolu pour pour man maanaam du man ak ñooñu quoi. mais attends attends mais ñooñu est-ce que diisuñ parce que maalaw séeraas maalaw séeraas ndaanaan la naaru sokaas daan na fi ku ne. est-ce tamit est tamit teelu ci yow. waaw ñooñu ay monument màggataguñ de. ñooñu ay si arène bi. yaa ngi dégg mais garab ci kaw lay fekkante. Mm-hmm. yaa ngi dégg waa man damaa nekk fi pour làmb waaw néew ma pour kii walla kee man maa ngi fi pour ñëpp làmb laay def waaw man waaw parce que mooy suñu métier. démb dafa am ku bëre daan am ko ne ma sa digganteeg moom làmb ko daax. muy kan. Bousse. Bousse comédien nga këccëf. comédien nga dafa nga bëre comédien yi man mbër laa du ma comédien yi man mbër laa du ma Bousse mbër gisoo démb li mu def li mu def Alaaji Mbay jàpp ko xëcc ko taf ko mu ñëw mu rëf ko caxal ci biti. man du ma teesante non téesante non téesante wu dafa ndànk. waaw jeen la déglu mu la man xam laa xam. waaw seen lis am nga combat ma dem entraîner jour combat ñu arbitre sifflé ma dóor jàpp bëre daan loolu laa xam mais xaw ma ay wax waa. mais xanaa gisoo xanaa xanaa gisoo këccam ñu def ñu def jëf jël ci États-Unis duma ko du may met ñëw fi mu jàpp Alaaji Mbay tamit defaral ko. waaw kalaas googu yow dama seen morom. barke alxuraan du ma nag ñoom sax si làmb. fa doon tuddee waroo ma tudd. foo mu tuddee waroo leen tudd. mais loolu làmb milieu la loolu. du ko dàq diggante géejuwaay diggante géejuwaay ak ak ak jàmm gën. mais doo dégg ñu ne làmb maanaam ñaari mbër ñoo koy njëkk a wóote. Ketchup daa mën nekk milieu. kay mais nag am na mafia de. waaw am na ma de. buuse buuse fi nga jàpp foofu la dal tànn si yooyu noonu rek. say morom ko waa di bëri ñoom. ñoo ñëw ay moom. ñu doon bëri ay alaaj mbay lay bëral. yaa ngi dégg na bëri ay alaaj mbay. mais nag bi mu jàppante alaaj mbay da ko woon doole force. waaw ñoom ñaar kilomètre gañ. no gañe na moom ba noppi. waaw waaw gañe na ba noppi mais dafa am ku ma dee na ma loolu sa combat moom daa du ko daax. waaw loolu la gis xam nga ku ne yow gis rek ngay wax. non man man gis naa ne combat bu neex la. waaw man de. yaa mën parce que mbër ak mbër ñooy bëre quoi. waaw non non mais yow buuse am licence sëgg ba di entraîner di sëf cent yaaw am na licence. waaw mais yaaw mbër la. mais du ma bëre ak moom. buuse doo bëre parce yoon bu mu jël moo tax. non mais buuse buuse na. buuse tam yoon boobu la jël rek. ñoom ñëpp ñoo yem benn même àtte. waaw man nañ ma jox mbër yi. jànkay quoi. xale yi nga xam ne dañoo ne ci yoon. waaw jànkay nañ ma leen jox. maa ànd bu Ngor nag. xaw ma ko. <laughs> bu Ngor daan bi xaw ma Siteu bu Ngor. Ah? daan daan daan Franc mbër daanu ko daan mais moom la jox victoire. daanu ko waaye man xaw ma ko sax man. kan nga mujjee bëreel. man koo mujjee bëreel. non non kañ nga mujjee daan. caatu rëbës laa mujjee daan. moo daan caatu rëbës. waaw mais bokkul. non lu leen wutale da ngaa daan caatu rëbës mu daan caatu rëbës. bokkul ko waaw man waxuma la Siteu bu Ngor de. Siteu bu Ngor ñu ne si noppam di ko dee sax laa la wax nii. lu dul waa Ngor. bu ñu ma fayee deux mille francs du may bëri ak ñoom. comprendre ma de. wallaahi ma ne la waxuma la Siteu bu Ngor. waaw mais ñu nekk si noppam di ko dee. waaw ñu dul waa Ngor. ñan ñoo nekk ci noppam. ñu bu ñu ma fayee deux mille francs damay bëri ak ñoom. mooy ñaan. voilà ñoom xam nañ seen bopp. waaw mais ñii seetaan xamuguñ. peut-être yow xam nga ñoom xam nañ mais man dama bëgg internet yi xam ñan ñoo nekk di dee sëtë bu nga. waaw football daam ñu ko yónni. football muuma ku ci wax rek hmm. kon daal kot la ci biir kot yi. nañu ñu ñëpp. lan ngay wax bu Ngor parce que moom tamit defe naa ne lu mën a am bëreeg moo ko gën a. yàlla ko yàlla defal jàmm. yàlla lu mu viré si làmb lu mu si bëgg yàlla ko yàlla may ko waaw. yaa ngi dégg mais nag bëgg naa bëri liis daan liis. man damaa bañ bëri si la mu war bañ ma ko de mais dafa teel. walla du léegi quoi. ah mais bu ci kanamee est du gën a métti fekk booy bu gën a am doole nga gën a liggéey. si la mu war mag liis téeméeri at ngeen. kan moo mag barki alxuraan ay yàlla moo ma tiim. si la mu ngor ba muy taxaw combat moom may xalaat te ñoom may xalaat samay grand frère la si la ngor ba muy taxaw pour bëri ñoom mbapat te damaa xalaat bëri laal booy. waaw yow. si la mu mag moom mag at yu bëri barki alxuraan karim kon léegi daal su ma déggee da nga bëgg a gën a liggéeyaal ba gën a màgg ngeen tase ci kaw voilà na job ngir yàlla xam loox ak yeneen mbëri waa na man ñaan naa yàlla tamit ñun mbëri yëpp ñu ñu dadee dayee ci ku ci nekk sa rêve si làmb mooy teral say waajur mhm. te tamit ñaan naa yàlla ñu réussir teral seen waajur waaw suñu liggéey la ko waa mais nañ liggéey ba si kanam ne man moom man su waajee maa ngi fii pour làmb laa fi nekkal damay baa ma kenn waaw damay bëri ko waaw parce que loolu lañ ma sant Liss Bëreel ko waaw loolu lañ Bëreel lañ ko sant euh, defe naa ne nag am na xew boo xamante ni defe naa duñ fi ba dem te duñ ci laal. mooy dimanche mooy lan le 22. waaw le 22 mai la quoi. Mhm. sama anniversel waaw bés bu ma juddu woon moo dellu si vingt 22. Mhm. di bëggee àdduna di ko xam la di ko yëgal àdduna képp kuy bëggee Liss Ndiago ak foo mënta nekk képp kuy soppe Liss Ndiago maa ngi lay woo si anniversaire bi dimanche lay doon waa sabar bu mag lay doon fii. Tanbir. waaw Tanbir la waa Sen TV ñoo fi ñëw waaw ak télé média yëpp te bëgg naa tam yéen tamit ngeen ñëw waaw ak yenn artistes yi quoi di si ñëpp ñëpp waaw 22h lay commencé affaire yooyu. Hmm. waaw di bëggee ñëpp tamit. baa di nga wax xale jigéen bu ñu sol baa. waaw feeñ sol baabam daanaka rafetul waaw muy neex nga def sër. waaye wax leen ko rek wax leen ko ñoom ñu dégg <laughs> déedéet waxal loolu parce que xam nga léegi booy dañoo tàmm dañuy ñëw ci sabar def baar xam nga loolu du rafetul balaa muy neex nga def sër. xam nga waaye sax moom su waay jàmbaar yi nii def loolu bëgguñu ko. bëgguñu la waaw booy la bëgg ay riisam mbale. waaw ay cuuraay xaar ay cuuraay mer xaar ba ma jaaga. bilaay góor day dëgër këj. waa gis ngeen anniversaire bi le 22 di ko ñaanal euh, ñu fekkee ko ñu ñëpp incha allahu rabbi ah, mu neex te di nuyu ndax xam naa ne moom jàmm gën bu xale yi jógee Sadji takku ba dëgër defe naa ne loolu beneen affaire la boo amoon kàddu yu mujj lan la nekk. kàddu yu mujj mooy di ñaanal tamit jàmm gën ñi sam combat ñëpp. waaw yàlla may leen ndam ko waaw. Siteu jëlaat na Papa Sow. Siteu jëlaat na Papa waaw làmb la rek. waaw làmb moom moo demee noonu. parce que ñoom mhm. yàlla ko yàlla Hmm. Laurent fu mu jëm. mu jëm mooy ay moromam. na ñëw ay moromam. ay morom mooy ay Siteu bu Ngor. ay caatu rëbës. non yow boo bañee yow boo bañee Siteu bu Ngor bul ko dugal ci Laurent waxal ma ñeneen. mooy catégorie. non non du bu Ngor doyul dara parce que mënu teg la ay ay ay preuve mu di ko jël bu Ngor ay combat kan bu Siteu nu ma pees bu Siteu. waaw moom ay Siteu Siteu mu ay combat ëpp ko ay victoire. te Laurent da koo daan. waaw bokkul bokkul moom daane bu Siteu moom daane bu Siteu la romb ñoom Siteu fu mu gor ñoom rek. barke yàlla. waaw gannaaw yow fi mu toll da bëgg a booy ba ko ci kaw. kaddu yu mujj tàggatoo. kaddu yu mujj mooy maa ngi bëggee ñëpp di bëggee àdduna di ñaanal jàmm ko ñi sam combat ñëpp. waaw yal na yàlla may ndam yu sedd guy ku si mel ni ñoom xam nga ñoom yille. nga mu war a boo yëpp ay sàqal ku lim da ngay jum quoi di ñaanal ñëpp tamit di wax ne tamit jàmmagoon fi xam loox waaw ñun fii la juddoo fii lañ yoroo ñëpp benn lay. Mm-hmm. yaa ngi dégg ah? waaw mag ñi waaw nañu yërëm ndaw ñu ko waa. yaa ngi tamit yéene leen jàmm ko waa. Mm-hmm. parce que jàmm si la lépp xaj. Mm-hmm. waaw nit boo ko mënul ñaanal rek baax mu dem ak xam la lu ko yàlla. li ko yàlla may. waaw di sant ñëpp gërëm ñëpp. tamit di sant suñu yaay ami afia di sant aw Balla. di sant suñ tonton bu baax hélas borom France wax di sant mafia bi yëpp yëpp bàyyi ma kenn di wax ne sama happy birthday gaan dimanche bii di ñëw la ne ko ñëpp waajal waa di bëggee àdduna di sant suñ yaay Fatou Sow waaw di sant dégg naa Samba Diarra moo koy toj mooy ay mbooy ma jaag day ñëw ay Baye Mass ay Vandaya aw Vandaya ñëpp ay Lica Lica ay Lica Poro Lica Poro ak bi ñoom Fadou boo yëpp day ñëw sant ñëpp di woo mafia yëpp millier a wóoree si sama lox sabar bi quoi di woo suñu yaay lépp ay aw balla ñëpp baa ma kenn ku lim rek da ngay juum sant ñëpp gërëm naa ñëpp waaw di rafetlu tamit seen teewaay bu baax. Mhm. sëñ Fallou ah. gis ngeen tey di di lancé appel si waa CNG. waaw na tamit ñun mbër yi maanaam mun ñoon ne suuf tamit di gérer ci kaw. Mhm. te démb gi nga loo amee stade dégg naa. Mhm. waaw tamit supporter tamit def nañ ko lu tax ñu añ ma. tamit dégg naa def nañ comme loolu. mais maanaam di leen wax rek maanaam mbër yi mu ñoo ne suuf di gérer ci kaw. ndax mhm. ñun métier lañ am muy làmb nañu bàyyi ñu bëre ko waa waaw loolu laa leen wax. gis ngeen euh, appel bi mu lancé rafet na trop na gars yi na gars gën a jàppalewaat mbër yi parce que tamit euh, sport la nit bu ñëwee di di di di lijjanti li nga xamante ni moom mooy ay cumukaayam bëgg a concentré wu ci làmbam mënul concentré wu ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kaw di di di yëngal wala di supporter mu xelam yëpp mënul jàpp ci loolu nañ ci gars yi gën a jàppaat muy supporter muy ñi nga xamante ni ñooy andi mbër bi di ko gunge nañ jàppalewaat mbër yi parce que lii dafa metti bëre ba noppi ñu téye sa xaalis aj la xam nga te yow boo xëyee dem nekk ci sa liggéey moom mu xëy wa nekk ci liggéeyam toog di semi rafetul te tamit neexul ci xol di leen jox dig daje beneen yoon di santal di santal ak baabaa bu baax borom som-som ak saaliw sita yàlla min tam di sant Milka bu baax borom comme lox borom Grand Mbaaw di sant tamit Ibro Bawol waa di leen sant bu baax ñu ngi jàppale bu wér a wér di sant Lamine waa borom Seras di sant waa Seras yëpp ma kenn bëgg waay jaajëf